Euh, présent nga le président président en même temps vice président fédération euh, sénégalaise de basket-ball euh, d'abord IGF de la di dal pour ñu basket ci AS Douanes ak ci ak ci monde président démarrer un peu saison bien hein. bi mu démarrer ça fait juste année deux semaines comment ça se passe est-ce que conditions yëpp réunir na pour ngeen pour pour saison bi démarrer comme ni comme ngeen ko bëggee won waaw bu nekkee ci walu fédération conditions yépp euh, réunir nañ mun nañ ko wax euh, euh, parce que bala ñi commencé dafa am ci lo xam lepp dañ koy teg xol programmation bi ci année bi xol compétition internationale yi am yi xol lan la dépense wara tollu lepp ñu teg ko donc si lool lañuy wëy commencer saison bi pour ñu bañ am taxaw taxawaay te xam ren aussi am na ñu ngi nekk ci période bu période élection dina ci nekk ci dina nekk ci année bi donc yooyu yëpp il faut ñu boole ko ci euh, xool ak yeneen compétition yi nga xam ne mi ngi am ci biir année bi au niveau international est-ce que du mun a gàllankoor suñuy ay match

basket ñëwu fa bon c'est Dakar Arena il faut que nous sénégalais euh, que ni basket moo euh, même aussi euh, comme ni basket discipline handball volleyball sport de combat ou wala tennis de table dañ mais lu ko lu ko sabab am ak tax mu 2015 euh, gagné fofu afro basket bi dañu tok juroom ben at euh, gagné gañewuñ ñu dem fofu jigéen ñi fekk bobu ñun sax ñu ngi soga ñew suñu mandat yobu jigéen ñi gagné donc ci lolu ba ñëwee président euh, mu mu ne ko def lu rëy dina am lu rëy ci loolu la lañu ko tabaxalee jagleel ko nag sport yooyu ma wax ñu organiser foofu ñu ne woon tey jii tey pour nga xam ne jigéen ñi comme jigéen ñi ñoom ñoo tax ñu am salle bobu nañ ko jagleel jigéen ñi première journée bu ñuy jouer ci basket nañ ko jagleel jigéen ñi motax ñu def fofu journée première journée bi légui nak fum nek ni nii nañ fa première journée té xam nga euh, jaar na ci yoon té ñëpp kontaan nañ té bo xolé salle bu répondre ay normes la motax score yi dafa rëy bo xolé tay deuxième journée bi bu ñu jouer Marius Ndiaye score yi dafa xawa wacc donc yoy yëpp war nañu jàngat yoy am ci solo ci loolu nag fédération sénégalaise de basketball nee na dañ fa organiser benn journée boo xam ne pour góor ñi la aussi donc euh, loolu moom lañ toll pour le moment mais du caaganee dañ koo bàyyi waaye dañu gis ne comme suñu compétition yi fii Marius Ndiaye moo gën a jege euh, ñu defee ko foofu parce que foofu bañ fay organiser tamit def na am na ay dépenses yu bëri ay mesures d'accompagnement yu fédération jël te euh, fédération basket du fédération bu am xaalis loo xam ne donc dañuy yaakaar ci ay ay ay ay sponsor ak euh, loo xam ne ressource yoo xam ne ñun ressources interne la ak euh, des fois yenn subvention yi nga xam ne état dina ko def accompagné par le biais du ministère des sports ah, pour accompagner fédération sénégalaise de basketball ci loolu la waaye donc mais mën nañ wax ne dañ fa dellu si waat dañ fa organiser waat ak euh, pourquoi pas sax ñu organiser fa yeneen compétition yoo xam ne au niveau continental lay doon wala au niveau international mhm. saison bi démarrage bi est-ce que bon nu ñu koy waxee sax yéexul saison bi yéexul démarré euh, par rapport ak année passée un peu. waaw bon mën na nañ wax ne yéex na wala yéexul parce que boo xoolee euh, at yi yëpp ci période bi la ñuy commencé mais danañ pare saison bi euh, ren xëy tamit ren dina xaw a parce que xam naa moo tax nit ñi di xaw a wax dafa yéex parce que boo xoolee am nañ compétition am nañ compétition FIBA ci février bi war nañ dem Côte d'Ivoire pour jouer fa mooy fenêtre 6 bi pour boobu nag nga xam ne Sénégal war na ci am benn ndam pour mën a dem coupe du monde ak am na maanaam lu ñuy wax afrobasket jigéen ñi am na coupe du monde góor ñi te am na aussi U19 boo nga xam ne tey mu ngi nekk mois de juin fële ci Grèce donc yooyu boo ko boolee tey jii xëy na mën nañ wax ne dina xaw a euh, xat loolu ci saison bi ren ji mais mën nañ wax ne c'est fédération mu ngi nekk di rek xalaat ci ay ay ay ay ay mesures yoo xam ne dina ko jël. Euh, comme maanaam pourquoi pas moom ni ko président fédération waxee géeloo nit ñi équipe yi ay mercredi ak euh, samedi mooy ñaari yoon ci semaine bi jéem a xool ni ñuy accélérer parce que loolu tamit dafa baax sax ci équipe équipe ni muy gën a mën a amee compétition ci la ñuy gën a mën ay résultats score yi di gën a bëri te loolu moo am solo parce que score yi bu bëriwul amul solo ci basket donc mën nañ wax ne daal euh, fédération daal nu même bu yéexee nii. Euh, jël nañ mesures yi nga a saison sportive hmm. avancer un peu dugg fenêtre fenêtre six euh, mondial Sénégal chez les chez les garçons bu gagner match bi dina qualifié dina dem Chine euh, ak à moins deux mois comment instant bi préparation waaw mën nañ wax ne loolu ñu ngi ci ñu ngi ci de ñu ngi ci xam nga loo xam ne la ba fenêtre cinq bi jeexee rek ci lañ nekk ci six bi donc loolu coach mooy maanaam direction technique nationale ñoom ñuy liggéey ci ak secrétariat fédération ñoom ñooy liggéey ci wàll boobu parce que coach il faut mu arrêté listam bu ko paree jox ko fédération yónnee ko FIBA FIBA dugal liste boobu pour ñu mën a valider joueurs yooyu seen licence ba nga xam ne dañ mën a qualifier pour mën a jouer fenêtre boobu donc après nag coach bi moom mooy xool ci ñu muy wàññi ak ñu mu dul wàññi ce euh, li nga fédération aussi côté administratif war président bi jël na au niveau du ministère xool nu ñuy mën a ba nga équipe bi dem euh, entraîné compétition parce que loolu comme nous parce que Côte d'Ivoire moom dafa soxla victoire ñun ñu soxla une victoire kese te Sénégal bu victoire Côte d'Ivoire euh, tay bobu Cameroun mom moy guen Cameroun bi nga xamné mom ci groupe E bi la nekkoon donc ñom ñom yey guen té ñom bokkuñ ci pool bi xam nga moo tax mun wax ne sax Cameroun Sénégal lay supporter pour que Sénégal mëna am ben victoire Côte d'Ivoire bu ko defee day tok euh lolu waye ñu demee ba Côte d'Ivoire diko organiser mun nañ ne tamit Côte d'Ivoire dafa bëgg qualifier donc Sénégal motax tax ñun matuwaay yépp yi nga xamné war nañ ko jël dinañ ko jël. ba nga xam buñ démé duñu am déception parce que mëno am ci 3 match nga né benn rek nga ci soxlo pour qualifier <laughs> do qualifier lolu mom buñ ko défé moy que ni kilifa réew mi duñu ko bal moy autorité yi ak sénégalais yi sen bop aussi duñu ko bal wal logistique bi dafa am solo chaque fois chaque short di chaque short yi eh, eh, que ce surtout sélection masculine bi dañuy fal di am problème ay difficulté bu démé surtout à l'extérieur est-ce que bi yéen ngi bàyyi xé yéen ngi sóoraale yéen éviter lolu pour mu baña amat comme li amoon bi je pense bi li amoon Nigéria. waaw xam nga xam nga yoy moy xam nga il faut ñu ci ñuy fàttaliku que ni compétition FIBA xeyna ak FIFA bokkul euh, FIBA bo xolé ci ci circulaire bi mu la koy yónnee dañuy wax ne équipe fédération hôte bi mooy fédération bi dalal compétition yi moom mooy jël hôtel léegi ci wàllu hôtel boobu temps la ngay joxe par personne délégation bi tant de personnes la par exemple 25 personnes lay doon ñaar fukk euh, ñaar fukk ak juróom nit lay doon mooy délégation délégation bi yëpp moom boole ci administratif yeeg techniciens yeeg ñëpp ak joueurs yi ak euh, les médicaux loolu hôtel te normalement hôtel boo xam ne am na ay critères yu muy répondre te lépp mu ngi ci circulaire bi comme lu nekkoon Nigeria xam nga des fois équipe bi des fois duñu jouer le jeu ñun Sénégal bu ñu organiser à chaque fois dañuy fexe ba joxe hôtel bi nga xam ne répondre na aux normes de compétition internationale euh, loolu parce que pour bañ a yàpp lu suñu réew la duñ ko nangu parce que duñu nangu équipe ñëw fii ne xëy na hôtel yi baaxul mais yeneen dëkk yi ñoom dañ ciy jouer pour jéem a décourager les équipes yi pour jéem a démotiver leen ñoom loolu lañ ciy jublu te loolu baaxul parce que loolu du esprit fair play du éthique aussi ci wàllu sport mais lépp li nga xam ne tey jii. Euh, am na Côte d'Ivoire même muy metti wala mu ñak metti ñun dañuy dem pour qualifier parce que opération commando lay doon même muy metti tay ji jour yi dañ koy nangu supporter ko ak technicien yi ak waa mooy les administratifs aussi pour que mun a dem euh, gagner xam nañ ne du yomb parce que Côte d'Ivoire comme gannaaw dafa bëgg Sénégal ñak yëpp te dëkkam lañ koy dalal boobu ñu préparer psychologiquement nit ñi que ni du yomb. Euh, même loo waral waral waajal waajal waajal lépp dinañ dem dinañ am ay gàllankoor yu ñu koy tegee comme ni ñu koy defee ci football nga xam ne club yi dañuy dem ba ci jaraaf tout récemment dem na Maroc gars yi teg koy difficulté te équipe marocaine bu mu ñëwee fii gars yi dañ leen dalal teranga sénégalaise donc pour dire que loolu la esprit la daal esprit la mais lépp nañ ko teg ci wàllu fair play parce que compétition loolu la mais leneen lépp lu ñuy wax tamit mooy ñu dellu waat mooy que ni ñu jàpp ne opération commando la du yomb moom ñu jàpp loolu dugal ko suñu bopp déjà même boo demoon booy jëlee sa bopp hôtel du yomb parce que dinañ la teg yeneen gàllankoor parce que ci circulaire bi fédération am na possibilité boobu mais ñu ngi rafet njortu que ni hôtel bu ñuy dalal dina baax te leneen li nga xam lépp lépp lu métti nañ ko nañ ko nangu te nga xam ne lenn moo ñu fa yóbbu benn victoire. Mmh. am ngeen fédération dina soxla budget quand même pour équipe bi mën a préparé wu d' abord préparation bi équipe bi kañ ngay commencé ak préparation ak est ce am ngeen garantie ni ki joueur joueur joueur entraîneur soxla yëpp di dinañ dinañ ñëw. Oui, xam nga coach le euh, jour parce que balaa muy choisir dina am des paramètres yu des parce que non lay choisir dina ak joueurs yi dina kan des forme dina des kan ci forme direction technique nationale avec le président fédération bi suis waxtaan diisoo ci confiance war fenêtre bi euh, joueurs yu NBA que parce que monde que ni ñoom du ñu am jot parce que dañuy nekk seen compétition yi te loolu FIBA ak NBA diisoo nañ ci ba d'accordoon ci avant ñuy commencé compétition yi euh, leneen li nga xam ne tey jii que ni joueurs yi moom moom ñun fédération li ñuy wax li mooy joueurs yi nga xam ne ñoo gën nekk forme ci temps yi parce que loolu lañ soxla soxlawuñ keneen koo xam ne tey jii day ñëw pour euh, ñëw bañ a mën a jouer wala bañ a joxe parce que <laughs> opération comme ni ko waxee opération commando la mais loolu li nga xam ne tamit mooy wàllu budget mooy que ni boo xoolee ci compétition yi euh, état. moom mooy yor équipe nationale ministère du sport dañuy accompagner mais moom mooy moom moom loo xam ne dañ koy def fiche technique lañ koy jox mu xool lu lu yanu maana ak lu yaruwul maana mu disoo ci fédération ba d'accord ci ñu tënk loolu lépp ne loolu la ñuy def donc lépp li nga xam ne tey jii euh, war na euh, état Sénégal dina ko def parce que tamit euh, état ñun fédération délégation de pouvoir lañ ministère moom moom pouvoir bi daf ñu ko jox ñu koy doxal rek donc euh, lépp li nga xam ne war na ci ministère dina ko def am na aussi li nga xam ne ay ressources addition additionnelles mooy suñ sponsor yi donc sponsor yi moo tax boo seetloo ñuy wut ay sponsor yu bëri ñuy accompagner pour mën a nga xam ne yenn frais yi dinañ ko mën a supporter parce que mun nga am ay imprévu te loolu day am ci compétition internationale munoo dikk ne lépp li nga prévu li nga budgétiser dina dina mun a lépp li nga xam ne moo moom nga wax yaakaar nga rek moo nekk ci budget bi loolooy nekk déedéet mun nga dem ba fële comme li nga wax léegi cas que hôtel bi xëy na hôtel bi baaxul yooyu ay budget li nga xam ne doo ko prévoir donc loolu il faut nga am ñu la accompagner ci biir compétition yi donc prime yi aussi état moo koy fay donc état Sénégal c'est fay wax que ni fofu problème amul. Euh, de non parce que état mo mom lolu xam nga tay équipe nationale état moko mom te Sénégal bu nekké autorité yi rek bu len bu bu que ni Sénégal qualifié bu donc nous, ñun nañ japp ne autorité ministère ministre des sports ak euh, collaborateur Nous ñoo ñu gëna bëgg que Sénégal qualifié donc loolu lañ koy Nous mu tegu nag fédération bi aussi ñun ñëw euh, son excellence monsieur le président de la république ak euh, le premier ministre ak l'ensemble ak euh, membre gouvernement bi ñooñu ñëpp dañuy bëgg Sénégal qualifié mu boole ci nag population sénégalaise donc ñëpp ñu bokk qualifié Euh, nañ jàpp ñun ñëpp ñu am solidarité ba nga xam ne tey jii mu bañ a am dingat nga xam ne yenn problème yi am yi euh, ñuy xool nu ñu koy saafara moo gën ñuy dikk ne di ci dingat ay nit wala yooyu xam nga compétition moom boo ci tollee euh, mënoo wax ne lépp dina dina di nga lépp à cent pour cent yàlla a xam mënoo dikk ne lépp dina dina jaar ci yoon yàlla rek a xam parce que ëllëg kenn xamul donc suñu borom rek moo xam nañ jàpp ne loolu te gën nañ ne Euh, lépp li nga xam difficulté la fédération euh, ministère des sports ci taxaw ci nga ne dina équipe bi préparer équipe bi xam nga euh, du ah, mën nañ du du parce que lu wax rek du semaine bi wala suba wala suba ci biir semaine mën liste bi dina wax que ni lay démarrer ay ay entraînement que balaa ñuy dem lu mu bon bon dinañ dinañ entraîné wu Dakar pour dem balaa ñuy dem Côte d'Ivoire parce que il faut mu génne ko informer club yi parce que procédure la comme football club yi d'accord ci xëy na yooyu war def nañ ko un mois à l'avance même ñun ñi sax fekkee dañ jël suñu club sax club sénégalais yi ñun tamit il faut ñu informer ñu d'abord parce que loolu mooy yoon donc boobu te obligation la ñu libérer leen donc loolu mooy comme comme lu nekk ci football rek loolu la Euh, mun a jàpp ne daal yàggatul te euh, lu ci information yi njëkk yi journalistes yi ñoo dinañ ko am à temps pour mën a euh, eggee ko population sénégalaise parce que aussi li ñu wax les journal journalistes yi presse sportive ñooy suñu partenaire de tous les jours parce que ñoom ñoo ñuy ànd ak buy métti ak mu ñàkk métti parce que gis nañ ko ci compétition yëpp ñoo ñuy ànd ak te des fois mooy lu ma leen tooñee des fois dañuy fàtte micro yeeg stylo yeeg caméra yi nekk ay supporters te xam naa ne yow mi gisoon nañ la <laughs> waaw D'accord. <laughs> Uh,